rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil aalamiin uh, sëriñ Abu sant nañ bu baax a baax waxtaan wi fi ñu ko séente woon yàlla def na teg nga fa bu baax a baax indil nga nu lu bare bari ci loo xam ne luy wane ne liggéey munta ñàkk la tàmbalee ko ci njëkk ñuy wàcc fii ci kaw suuf fa ñu suñ boroom jaarale woon di wane ne foofa bu ñu fa toogoon lii lépp duñ ci fekk mu am noon bu mag boo xam ne moo ñu ko yóbbee bañ indi ñu fii yóbbu ñu xiif yóbbu ñu mar yóbbu ñu rafle te loolu day aajowoo nag lu ko saafara te la koy saafara doomu bi moo koy fàggul boppam kon loolu ndeke mooy sababas liggéey daal taxaw kon mën nañu wax ne sababas liggéey war mooy sababas rek wàcc ci kaw suuf ndax ku wàcc ci kaw suuf da nga xiif danga mar da rafule danga da aajo foo dëkk te yooyu yaa ki wutal sa bopp suñ borom àjji na la ko fàgguloo warlul ñu ko fa waaye fii nag moom kenn ku ne yaay fàggu ci kaw ci biir gi nag mu gàddal la ko waaye tamit dikk nga ci bu baax wax na ne li nga xam ne mooy li tax a wàcc doomu aadama ci kaw suuf du la lu may fexe ba suuf si dund mu def ci li nga xam ne moom la suñ borom bëgg bañ koo ràppal bañ koo yàq bala malaaka ya ñaawoon ci moom njortu di ko dal kon loolu tamit war nañ ko yëg bu baax a baax te loolu ci liggéey rek la mën a feeñe niki noonu tamit alxuraan soññe gi mu soññee ci liggéey indi nga ci ay aayaat yu bëree bëri tënkal ñu sax ab lim ci lu mat ñetti téeméeri aaya yu tegal yoo xam ne lépp dafay soññee ci liggéey wax nañu nag loolu lépp day wane ne suñ boroom dafa sonne liggéey bu baax a baax ngir bëgg nit ñi di ko def tey loolu firnde yu leer la ci bëri gi ko suñ borom di tudd lu bari ndax moom du koo xam ne dafa amul lum wax bay wax lu amul njariñ kon lu wax ba wax ji lu toll ni ci juróom ci ñetti téeméeri barab ak lu tegal loola wax ju ko ñor la waaye tamit liggéey nekk gim nekk loo xam ne yenn ci jaamu yàlla yi da cee nga xam ne ngir nga mën a mottali yenn jaamu yàlla yi da ngay liggéey ba am loo ko defee muy alal joo ko defee nga tuddee ci lu mel ni aj màkka mu nekk ponk ci ponk islaam yi te ngir nga man ko bokk na ca sart ya nga am lu la fa mën a yóbbu waaye tamit nga am loo fu mën a dundee ba keroog ngay dellusiwaat ni ki noonu tamit lu mel ni def infaax fi sabilillah muy lu am solo loo xam ne suñ boroom wax na ci ay njëriñ yu bëree bëri joxe ci ay misaal yu bëree bëri ci alquran te loolu ngir nga man ko da ngay liggéey ba am dara loo mën a defee infaax su loolu amul nag da ngay bokk ci majaal yi nga xam ne dañ ci def infaax waaye doo nekk koo xam ne dangay def infaax ni ki noonu tamit indil nga ñu bu baax ne liggéey mi li mu am am solo nag ngir mu mën a baax ak mën a dagan loolu nattuwaay bi sariya rekk la sariyan moom lañuy ñu natt ba xam mooy ñu nattal ba xam liggéey bi baax na walla liggéey bi bon na kon dangay ngay force dullit bi day dem delluwaat ci sariya tënkee ko sariya jox ngir li muy liggéey mën a baax mu tënku ca su ko deful nag liggéey bi du baax ni tamit euh, sellal googu nag euh, tënk yooyu nag tax liggéey bi mën a sell dara jiitu ca sellal te sellal mi ngi amee rek ci lan ci bàyyi xel sa borom ci foo ma nekk ak ci loo ma nekk ba tax liggéey bi loo ciy def boo wéetee ak ba wéetli ko nga xam ne sa borom moo ngi lay gis te loo ci def lu ne xam na ko kon muraaxab boobu ngay sorom dana waral nga mën a sellal sa liggéey tey dana tax liggéey bi mën a nekk liggéey bu lew boo xam ne bu dagal lay doon bokk na ci yooyu tamit maanaam wattandiku booy liggéey liggéey bi di la yóbbe bàyyi warteef yi lu mel ne ki bàyyi julli ak war koo def ca waxtu wa defoo ko ba mu yeex kon loolu tamit mën naa war a liggéey bi na war a selle du ko sell ndax da bàyyi la yàlla sant nekk ca loola te jamono yi ngay def liggéey bi ndigal yàlla ñëw liggéey bi daganatul ci yow comme ni ko sëriñ bi waxoon bu ñu ne allahu akbar li mu firi mooy lu dul julli daganatul kon nag bokk na ki tax ab liggéey sell tamit saa yu wartee fu suñu borom ak jamono liggéey ba nga bàyyi liggéey ba te dellu ca la nga xam ne mooy dala suñu borom sant ba mu jàll bokk na ci li tax tamit liggéey nekk liggéey bu dagan mooy nit ki ragal yàlla ci liggéeyam maanaam bu séqik nit la ko ca yoon sant yépp mu def ko ca bu ca mën a dolli sax mu dolli mu dolli ca leneen loolu bokk na ci lu koy maye waaye bokk na tamit ci li tax ab liggéey euh, bokk na tamit ci li tax nit ki mën a liggéey mooy mu wakkirlu ci yàlla ci biir bu baax a baax jàpp na lu mu am lu ne yàlla la waaye lu mu ñàkk lu ne yàlla la léegi nag door a yëngatu ci cëri kaw yi nag muy ci li feeñ te bañ a def toog rek yàccaaral jàpp ne maanaam warut def dara te war a dund ci kaw suuf si kon loolu mën naa ñàkk. bokk na tamit ci li nga xam ne soññ na ci mooy foo toll di ñaan suñu borom mu musal la ci ci ak ñàkk ak yu ñuy demee waaye tamit lépp luy tax nga mën a am dara nga di ko def bokk na ci yooyu mooy di teel a xëy dem sa barabu liggéeykaay te bañ a doon koo xam ne soo waree xëy huit heures da ngay dem ba dix heures wala neuf heures ngay door a xëy. ak tamit tamit lu suñu nga yam ca. te bañ a xër ba ëpp ndax xër mooy yóbbu nit ñi lu bari ci ñuy jëfandikoo lu xaraam ak lu dagan eh, duñ leen xàmmee àgg ba ci naan su may wut dama yor ab rat damay radu rek damay ratu su ma ratoo ba pare nag doog a teqale loolu tamit bokk na ci wax yoo xam ne wax ju day war la. niki noonu tamit eh, bokk na ci yi nga xam ne wat lu nga woon bu baax mooy ñàkk xëy ndax ñàkk xëy wax nga ne moo jur ay crime yu bari yoo xam ne mi ngi am diggante sàcc ak eh, rey nit ak jël lam yor ak yu demee ko noonu lépp moo ko waral. waaye tamit waxtu li mu amee njariñ nit war na ko fonk ba di ko def ci loo xam ne war ko caa def kon loolu lu am solo la nga dikkal ñu tamit ci nit ki li muy jëfandikoo ci alal moo xam ju dagan la moo xam ju xaraam la ni mu nekkee loo xam ne dafa mel ne appareil automatique boo xam ne bu ko jëfandikoo dafay tasiir ci li xam ne moom mooy jëfam bu jëfee bu jëfandikoo lu dagan ni muy nekkee luy jeexital ci ay jëfam ca sansa ngir mu maa def lu baax waaye bu jëfandikoo lu xaraam ni muy jeexital ci ay jëfam ci sansa ngir mu nekk lu xaraam Abdoulaye Dastouré euh, dafa waxoon ne nit ki bu lekkee lu xaraam farsu mu mooy yàlla su ko neexee ak su ko naqaree su ko xamee ak su ko xamul kon loolu tamit lu am solo la bokk na tamit ci li ñu dikkal mooy wax nañu ne nit ñi am na ñoo xam ne dañoo réere bu baax na dëdd jàkk dëdd mooy bàyyi fële li nga xam ne mooy xéewal yàlla yi ñu jox nga xam ñun rek ñoo ko tax jóg ñun doomu aadama yi nga sànni ko waaye fekk ne du loolu mooy di ko xéw la ba pare nag yëg na yàlla moo la ko defal te di ko delloo fa tax mu defal la ko waaye tamit soññee bu baax ci boo amee alal ba noppi nag nga di ko delloowaat ci li suñu borom santaane kon daal ci gàttal damay gis ne liggéey daal kon li ko tax a jóg mooy nga mën a am dara loo sutur ci wàllu àddina waaye tamit ndaka liggéey ñaar dong la jariñ mooy am loo mën a dimmandikoo ngir jaamu yàlla waaye am loo mën jël nag def ko ci jaamu yàlla yi mooy dim dimbal ci jaamu yàlla yi kon loolu mooy njariñu liggéey jëfandikoo ko ngir jaamu yàlla waaye te dimbali ci jaamu yàlla yi kon lépp di ak jaamu yàlla ci gàttal dal mën nga gis ne loolu mooy ab liggéey ci gàttal kon nag sëriñ Abo waxtaan wi leer na leerin woo xam ne commentaire moom du ci mën a gudd sant nañ bu baax a baax di la ñaan suñu borom yokk sa xam-xam bu baax a baax a baax def la koo xamante ne bii dangay nekk mag moo xamante ne bii ni sëriñ Tuubaa bëggoon ay euh, da ngay bokk ci biir bu baax a baax bañ ràññi la ci xam la ci baax a baax yow ak mboolem ñi nga bokkal waar wi ñu ngi sant bu baax jërëjëf sant ñëpp ñëpp jërëjëf kon ñu delloo sëriñ Maxtaar kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, sëriñ Muntaxa di dollee santaat sëriñ Abo mi doon def waxtaan wi mu jëloon tomb bu am solo ndax li nit ñi. di liggéey wala ñuy li muy tuddee sàkk lu lew te mu doon li nga xam ni ci la ñuy fàggandikoo sunu ëllëg euh, dafa jar di waxtaane jar di waxtaane gi nag day dellu ci lépp tënku ci li ñu tuddee ashariatul islamiya ndax su fekkee sàkku gi dafa nekk lu mënul ñàkk te mooy liy jagal dund gi fii waaye moo ñuy dimbali fale ëllëg lislaam tegal ko aw yoon wala ay yoon ni ci nii lañ koy sàkkoo loola dafa jar ñu toog di ko leeral toog di ko leeral googu nag weesuwul mu doon ndimbal ci ñi nga xam ne liggéey dafa war ci ñoom ngir ñu am luñ mën a dunde waaye it dañuy réere àttee jëf dogo jëf te lislaam dañuy digal bala ñuy jóg di def mbir ñu xam naka la ko lislaam até kon ñàkk xam ni lislaam àttee loolu mooy waral maanaa ñu sàkkoo ko sàkkuwun woo xam ni du lu lu dagan su ñàkkee dagan nag su boobaa day doon lu ñu am ci lu araam te bu boobaa du doon lu lislaam di gërëm ca nas ko amee te su boobaa mbugal lay doon ñeel jàmm bi waaye du ca mën a làq ngërëm loolu nag am na ay barrage yoo xam ne day dox diggante ñiy sàkku ak la ñuy sàkku mooy war a xam àtteb li muy jëf dog koo jëf waaye ragal laaj àtte bi ngir ni amaana suñ la ko leeralee dana doon jafe-jafe ci amin woowa gàllankooro loolu it dana dana waral commerçant yu bari wala ci jëflante yu bari ñu war caa laaj àtteb diine waaye ragal koo laaj su boobaa nag lay doon warteefu ka xam diina tey wax léeg-léeg ñu def jitaay yu mel nii leeral su ko defee ñu xamee ci ni lii la ndax jëflante gi tënkuñu ko rek ci commerce muy diggante jaay ak jënd ndax dafa am lu ñuy wax fiqhul muamalaat muamalaat nga xam ni mboole jëflante yi nit ñi di séq ñaar di ko séq muy lu demee ni sharika muy def ab société wala lu ni mel xeeti jëflante yooyu yëpp day dugg ci biir su boobaa nañu ñàkk xam la ca diine atte dana waral ñu jëflante ca seen biir noo xam ne day wuuteeg diine su boobaa loola duñ ko mën a tuddee kasbul xalaal waaye ci xaram lay jëm te mooy loo xam ni du du du du lu lew te sàmm da cay dugg même ndax ci jamono ji rek xam naa loolu ñuy bàyyi loo xel boroom xam-xam yi ñu ñu ñu ñu def ci ay jotaay ak gëstu ndax am na ay xeeti sàmm yoo xam ni wala xeeti ay raas yoo xam ni dafa dugg ci réew mi ñu di ci yëngu di ci sàkku alal euh, di ci jaayee ka jëndante te egg nañ ci sax ba léegi di di di jënd lu juddoogul te loolu jàpp naa ñi nga xam ni euh, géeju nañ ci sharia euh, àtte boobu du doon loo xam ni lu sharia di di rafetlu kon loolu lépp ci ñuy gindee ci sàkku lu lew luy am solo lay doon kon xaj na duñ mën a duñ mën a guddal ci commentaire ci foofu ndax li ci sëñ aboo wax ak sëñ euh, Muntaxa Seck dana doy sëkk waaye sëñ aboo ci fin bi it dafa duggale ci benn tomb boo xam ni bu am solo la mooy ginnaaw mu nit ki sàkkoo lu leew ba pare lam ca mën a génn dimbalee ko jaami yàlla yi loolu am ci loo xam ne lislaam da ko koy teg muy zakat moo xam waaw moo xam dafa jëm ci wàllu natt azaka bi ñu xam ci arkaanu islaam wala loo xam ne sadaxa la wala xeet yooyu wala loo xam ne mooy coobarewu di ko def xam naa ngir njëkkante ak euh, waxtu wi euh, waaw xam naa buñ kiyee ñu delluwaat ci euh, am na kilifa yu fi yu fi teew ak it di sant ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite jumaa ji ci jaarale ko ci bàyyi fàllu Dieng sëñ Muntaxa Jaw ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñooy jàpp ci wàllu organisation bi ba jitaay bi mën a am ci anam ji ngeen ko gisee ñooñu it fokk ñu sant leen gërëm leen bokk na ci ñi teewee jitaay bi sëñ Ahmadou Mbacke Muntaxa sëriñ Muntaxa Mbacke Mamor sëriñ Cheikh Massamba Mbacke sëñ Moussa Bachir Euh, sëñ Cheikh Ibrahima Mbakam sëñ Muntaxa sëñ Xaadim Mbàkke sëñ Muntaxa euh, euh, sëñ Xaadim Mbakam soxna Xaadim Mbakam sëñ Bachir sëriñ Moustapha Diop Manar sëriñ Moustapha Diop al Kokki baaxis walam ansal al aql Mauritanie waqad sharaka wa maana hazihi al jalasat fa marhaban bik ahlan wa sahlan gaddu wuld sëriñ Moustapha Mbacke Thierno sëriñ Abo Mbacke Muntaxa sëriñ Jili Mbacke sëriñ Abdoul Ahad Mbacke Thierno eh, sëriñ Muntaxa Mbacke Alxaaji sëriñ Muntaxa Guèye sëriñ Cheikh Ibra Guèye Lamp sëriñ Muntaxa Cheikh Khadim sëriñ Abdoulahi Mbacke sëriñ Muntaxa Seck sëriñ Bassirou euh, Mouhamad El Bachir Ka sëriñ euh, Bassirou Silla sëriñ Modou Sarr te muy gëstukat kon ñooñu ñu fi teew la bu dee ci wàllu média bi it ñu ngi leen di jaajëfal bu baax bokk na ci site internet yi nga xam ne ñoom ñu ngi jël topp waxtaan te di ko jël euh, site bi académie minan point org euh, Istikhama euh, Bichri TV Touba Info bu dee rajo yi Touba Mbacké FM Sud FM RFM Mbacké Walf FM Serigne Euh, waaw commentaire lay wax ok euh, waaw mooy site internet Bichri Bichri kon ñooñu ay organe de presse lañ yoo xam ne dañuy ànd ak ñun ci jitaay yi ñu di leen ci sant di leen ci jaajëfal bu baax a baax ak képp koo xam ne yaa ngi jàpp ci waxtaan wi ak euh, nooñ ci mën a jàppee bokk na ci ñi teewee jitaay bi Baye Serigne Sey Serigne Mountakha mbay sëriñ Moustapha Dieng ak mboole mbokki taalibe yi nekk bitim réew tey bàyyi xel waxtaan wi ci ay anam yu baree bari sëñ Mountakha kon bàyyi rek nga wéyalaat waxtaan wi ak. <coughs> sëñ bi kii dafay laaj ne ndax alal bu fekkee dañ ko amee ci euh, anam bu daganul ndax nit ki bu ko dugalaatee ci yoon yàlla wala mu def ci jëf ju baax dana tax loolu mujj nekk alal ju baax. bismillah euh, alal nag moom euh, dañuy wax ne euh, alal du du jëmmi alal ji mooy taq waaye amin wi moom la charia dul nangu maanaam nit ki li mu wax ne bu fekkee ne dafa wuteen dara noo xam ne charia nanguwu ko ba pare mu dugal ko foo xam ne mel ne mu tabax ci jàkk loolu moom du ci am dara ndaxte euh, maanaam anam gi ko amee baaxul defar gim ci gim ci defar jàkka du ko du ko jariñ dara du bokk nga alal ju la defar ci jàkka waaye loolu euh, boroom xam-xam ne dañoo wax ne alal ju daganut maanaam boo amoon alal daganut nga bëgg cee taxallus xam nga doo ko sànni boo amoon yi milliard nga bëgg ko mu xam ne léwut boo doo ko jëfandiku bu fekkee da ngaa bëgg a taqalikoo ak moom daal ci gàttal ngay def loo xam ne dafa nekk maslaha amma loo xam ne ñëpp ko bokk nga defar ko ci waaye yow doo ci am benn benn euh, tiyaaba sa digganteeg sa borom waaw loolu mooy laaj bi maanaam euh, waaye mënu koo def ngir boppam daal ci gàttal. jëf loolu leer na kon daal mën na koo def ci infaq fi sabilillah waaye bu mu ca yaakaar ci yaaba ngir mucc ci alal tamit mooy tax ñaare ñu koy def ginnaaw boo xamee ne dëgg nit te nga bëgg a génn ci. alal ji dëggantu googu mu set say loxo jërëjëf kon xam naa dañu woo euh, sunu mag Cheikh Moustapha Diop kokki mu ñëw def taaliq insha allah rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kon ginnaaw dañoo bëgg mu gàttiti rek ñaan nga kon moom du du kii kon xam naa euh, sëñ bi li mu doon wax leer nañi xanaa kay nuñ koy jëfee kay muy muskile moom ji jëfe gi yaakaar naa moom mënut a nekk daanaka ndax bu ñu xoolee dundin wi yaakaar naa ku dem marché bii rek Lukaas yaakaar naa pakk lambay rek foo ci dem ci dongo yi ni ñuy liggéeyee ku ne ci xam na ne dëpp wut ak diini loolu moom lu am solo la am na su sa benn su mbokkum taalibe moo xam ne ca sun kër ga lay sooye ma laaj ko ma dem place am gis fa ñu def lampe boo xam ne couleur bi muy jox yére yi soo génnee du du ko mel ma ne ko ma ne ko lii de moom da dëgganut ma toog fa gis it ku dikk mu boo laajee mu ne la original bi de mi ngi nii ma laaj ko ko ne ko ndax loolu la mu ne ma nit ñi boo leen waxut ne original baa ngi nii duñ koy ku jënde maanaam lu baax ma ne ko ma ne ko loolu de moom dëgganut bu buñ doxee ba foofa dangay gis sax dem naa fenn su suñu mbokkum taalibe moo xamante ne ma gis ko mu mu mu nettal jigéen ñi ay yére ma ne ko ah jigéen de so góor di ko nettal ay ay yére loxoom di lam mu ja dëgganut mel na nag kon mel na nag kon moom li li doon wax kon lépp moom kon maanaam dara loo xamante ne mën nañ ko fekkee ci suuf mu amut maanaam maanaam commerçant yeeg ñëpp moom euh, islam daanee fële ñu ñu ñu ñu nefee xam naa am na leneen loo xamante ne ci ci euh, laal na ko mooy euh, soxna yi nga xam ne ñu ngi ci xolli gerte commerçant yi koy def araam na lool di moom maanaam nit ku xolli gerte ab boolam mu noppi nga jox ko ñaar fukki dërëm dool ko ko ci kër goo xam ne day tëju pënd ba pënd bay dugg ca dënn ba doom mu yor doomam sonn lool léeg-léeg sax mu mu xolli sax ba noppi day jox la nga ne ko matul kon da koy per loola loola comme ça ñu koy def ak a xaraam ak a xaraam nga nga xam ne jigéen jigéen ñaa ngi wéré di di alku ngir commerçant yi ñoo leen di liggéeyloo noonu loolu moom ëpp na nga ne ne commerçant yi ñoom moom seenu dundiin moom dëgg yàlla dundin wu xaram rek la waaw maanaam lu lu luñ ci mën a joxe addiya nag lu mu bari bari bari it maanaam sunu boom du dangu moom sunu sunu boom du dangu addiya boo saraxee du ko ko dangu asaka asaka asaka mi nga xam ne moom it xaw naa jaxasoog thème bi mooy gaa yi da ngay war a joxe asaka jël asaka ja jox ko say bokk sa bajjan sa maam sa nangam joxe waa asaka de romb naa ab dëkk barab sàngam dëkk ba tamxarit ñu rew nag ma laaj waaw lii lu mu doon ñu ne ma diw sangam Tuubaa gi dëkk naa léegi asakaam lay jël di ko di ko jox waa dëkk ba ma ne ko du moom de doo asaka de asaka yàllaa ne jox ko diw yow bul ko jëndee nag ndax kooka mën naa am daa soxla ëpp junni bu mu jënd nangam loolu tax nga jëndale moom nag moom loola moom kon maanaam léegi moom sunu ko sunu commerçant yi moom maanaam doxuñu ci maanaam diine xanaa kay leneen ci laaj bi ñu laajoon ne waaw comme alal jooju ba def nag noo koy def sëñ bi téere yi sëñ Tuubaa war nañoo gëstu ci moom bind ci moom gaa yi ngi bind Seexuna Mbàkke Abdu laaj naa ko bés ne ko Seexuna ndax yaa ngi bind mu ne ma koy ndax su bindee kan moo koy móol commerçant yi yor alal ji seen moom liwut ginnaaw liwut nag toit bi ngay tabax seeni réew ña ngay tabax seeni réew ña ngay bind lépp nañ jël alal jooju liwut def ko ci ñu móol ci téere yi waaye nag duñ ci yaakaar nag ab yool loolu loolu ci tënk rek ndax ci ndax waxtaan wi lu mu baax baax baaxit it war nañoo laal réalité yi maanaam maanaam nun dunduñu diine li islam nga fële ñu nekk fële asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu jox sëñ ji li Mbàkke mu joxe commentaire am suñ ci noppee jox sëñ Xaadim sëriñ Cheikh tëjal ñu jitaay bi. aouzu billahi min asaytaan rajim bismillahi rahmani rahim. taxiyatan min indillahi mubarakatan tayba inna laa astafa aadama wa nuuxan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alaalamin suriyatan baxduha min baxd wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin wa ala alihi wa saxbi uli ridwaani wa tamkin yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa ak jataay bi di sëriñ Modou Abdoulaye ak sëriñ Cheikh Xaadim Mbàkke mu Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak sëriñ Muntaxa Mbàkke Maamoor ak mbokki taalibe yépp yi fi nekk sëriñ Abo waxtaan wi ni nga ko waxee rek loolu la leer na naññ naññ naññ ne ndax waxe nga wane nga ci biir waxtaan wi ne liggéey munta ñàkk waaye liggéey boobee bu munta ñàkk ba tey nga dib jullit suñ boroom dafa laa teg ne la nii ngay liggéeye loolu mooy xalaal nga ne kon faw li ngay liggéeye faw mu nekk lu dagan bu ca noppee it bu daganee ba pare ñaar nga ca war a jëfandikoo mooy li nga xam ne danga koy jëfandikoo ci sa bopp moom la sun borom naan yaa ayuha nnaas kullu mimma fil ardi halalan tayiba wala tatabiu xutuwati saytaan innahu lakum aduwun mubin ak anfiqu min at-tayyibaati ma rasaqnaakum kon jullit bi munta ñàkk mukk mu fàggu lu lew sëriñ Tuubaa mi nga xam ne it moom lañ am moom it dañ cee ubbil ay bunt yu baree baree bari ndax an an ndax def fi sabilillah moom suñ Tuubaa dañ ci ko ci ubbil lu baree baree bari ndax dama koy misaal rek Seex Muhammadul Muntaxa mii ndax aqrabul awlaa ginnaaw ci ab jataayam lañ nekk gis ngeen jàkk ji ñu nekk mu tabaxal ñu ko fi ñu fiy jaamu yàlla ca loolu lépp murid yi ak taalibe ko koy jox mu def ko ci yoonu yàlla ngi ci ñu ci jaamu yàlla ba ca topp lam ñu dimbalee it mu teg fi koo xam ne xalaal bi sëriñ bi doon jàngale faw dañ koy jàng door koo xam du ay waxi kese rek ndax wax ji mën naa jaar ci nopp yi jàll doo dégg waaye ñàkk gee jàng nag mooy waral lu baree bari kon ñun waa Daaru Minam gi moom Sëñ Muntaxa mënuñ koo fay moom kay dañuy fexe ba jàng mi moom mag ñi ak ndaw ñee ci yam ndax yonent bi minal mahdi ilal lahd sëñ Muntaxa tabaxal nañu jàkka bàyyi fi ku fiy jàngale kon li sëñ bi wax moom wér na waaye dañuy fexe ñun ñiy bokk ci njabootam ñu fexe di di ci sàkku xam-xam bu baax la ndax boo déggee alxuraan naan aman yam si mukiban ala wajhi ahda aman yam si sawiyan ala siratin mustaqim hal yastawi alladina yaxlamuuna walladina laa yaxlamuun te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liñ ko njëkk a wax mooy iqra kon jàng munta ñàkk kon yàlla na nu yàlla dimbale ci barkeb sëriñ Touba ñu yàgg fi lool ca wér ba it nangoo jàng it nangoo jëfe ndax loolu rek moo ñuy jàng ndax jullit bi haasa xalaalun wa haasa xaraamun la alxuraan wax daa am lu dagan am lu araam te ñu li li dagan mooy ñu def ko ñun kon nag ñu ngi ñaan jataay yi muy gën a yaatu bu baax a baax a baax waaye li ci gën a am solo daal mooy ñu jàngi te jëfe lu ñu mën a wax te jànguñ jëfewuñ it du sotti ca mag ñi àndoon ak sëriñ Touba yépp sëñ bi jàngal na leen ñu jëf ci kanam sëñ bi ñu bàyyi fi ay njaboot yoo xam ne it loolee lañ ñu tegtal genn la ci rek Cheikh Mouhamadul Mountakha maa ngi leen di sant di leen gërëm yal na nu yàlla nangul koor gi kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allasina min qablikum laallakum tattaqun jooju mu ci dige yàlla nañ ko am ci barkeb sëriñ Touba jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu ci weer wu tedd wi leen ziar euh, rawatina kilifa ak jataay bi muy sëriñ Cheikh Khadim ak sëriñ Mountakha Mamor. Euh, sànni kàddu gi nag xam naa lu gàtt lay doon. di sargal sëñ Abo ci kàddu yi mu fi sànni ndax dafa mel ne bu ñuy wax naan doomi mbër jàngil des na la ñam doonut ci ay ñuy jàmmarloo ci ay yaram rek waaye mel na ne li sa bàyyi doon ak say maam doon ko nga donn ko jéem ko mel na ne mi ngi ci sëñ Abo ndax xam naa ne ay jaar-jaaram at yi bariwut waaye jaar-jaar yi riche na parcours bu riche la def boo xam ne nii am na solo ndax euh, Maodo bi mu fi développé wane na ko wane na ko tey jii kon nag gàcce ngaalama bu doom sëñ bi loolu warta bett kenn euh, Maodo bi am na solo lool waaye lu lu lu jafe la ci jamono ji ñu nekk ndax dañoo ndar képp ci ni système bi di doxe waaye teewut ku góorgóorlu da nga ci mucc lu jafe lu jafe la nag ndax ci commerce beeg ci jëflante beeg dem nañ ba kuy jaay sax doo wax dëgg ba ci télévision yeeg ngoon gu ne ñuy gis ku toog naan ku def lii am lii ku def lii am lii te loolu lépp ci kasbul xalaal lañ ko jublu mais du kasbul xalaal xëy na wu am koom lañ ci jublu waaye du kasbul xalaal kon nag euh, Maodo bu bu bu bu bu riche la bu bu bu am solo la wax dëgg yàlla kon ñu ngi ci sant euh, académie bii nga xam ne nii euh, ñoom seen seex ko taxawal seen maam muy Cheikh Ahmadul Bachir nga xam ne tey fii mu tëdd kenn ku ne xam ne ne koo ko gis xolum sedd na guy fam nekk ndax euh, euh, koo xam ne nii minanul baax bi nga taalif tey jii ci yoonu murit mooy marjan bi nga xam ne nii mooy bi wóor te wér ci yoonu ci ci ci yoonu murit gi yàlla dogal ka def loola ñu ñu toog tey jii ba ñu toog ci am péncam ay sëtam toog fi wutal euh, wutal ko fi ab académie loolu yaakaar naa ne war nañoo dem ba mu war na nekk université Minanul Baaxil Xadim bu Cheikh Amadou ndax kenn ku ne fii ñu toog euh, ñoom sëñ Muntaxa ñii ak sëñ Cheikh ñii fii lañ toogoon kere woon fi ahfaadu Cheikh Amadou Bachir muy setu sëriñ Basiru yi ba kenn ku ne dégg na discours sëñ Sàmbay bu siiw bi mu defoon fii tey ci penc mi ñu dajale fi sëñ Sàmbay Cheikh Amadou Muntaxa sëriñ Saaliw ambassadeur loola ban koy def loolu lu yàgg la woon toujours rek sëñ Bassirou dañoo xam ne moo ko yeyoo ñu dem a dem a dem a dem ban dekkalaat fi académie bu mel nii kon nag euh, Serigne Cheikh lii liggéey bi ñu ngi la ci euh, euh, ñu ngi la ci encouragé te te te te di la ci te di la te ñu ngi la ci encouragé bu baax a baax a baax tey ñaan yàlla liggéey bi jëm kanam ndax ku xam mm, sëñ Mountakha ndax bu ñuy wax bu ñuy wax li sëñ wax léegi faaw ñu dellu ci Cheikh Modou Mountakha mi mi def lii ndax bu li tubaab naan accéléré la cadence sëñ Mountakha moom dafa accélérer la cadence moom moom moom fenn àddunaam sépp day dem rek moom. kon nag nan sant yàlla ba nu yàlla boolee ci moom ba nekk ci gannaawam ci liggéey bu bi bii nga xam ne nii bu rëy rëy la ndax kenn ku ne xam ne ne jumaa jii bi mu ko fi tabax diggante bu gàtt la ko fi def. wàllam la woon rek mu war koo def kon nag ñu ngi ñu ngi ciy sant yàlla te te te di ko ñaanal ci ci ci ci ci ci ci barkeb jataay bii yàlla bàyyi ko fi ci sunu kanam ndax euh, euh, bu fi yàggee dana baax ci ñun te sunu sag doon kon nag ñu ngi ñu ngi ñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen di di di leen gërëm euh, di ñaan yàlla liggéey bi yàlla na ko yàlla barkeel te jëmale ko kanam bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw ñu ngi ñu ngi sant mbooleem ñi fi teew rawatina sëñ Muntaxam sëñ Mamor nga xam ne moom ñu ñëpp ñoo bokkoon nekk fii ci ci ci kër sëñ bi bokk benn génération jàngandoo ndax xam-xam dafa am solo ndax bu ngeen seetloo euh, sëñ Muntaxa li ko xam-xam jaral euh, ma maa ngi ko koy nettali bërki démb ci bi mu nekkee Ndakaaru dafa am genn góor goo xam ne nii euh, ab mu xaddam la ne ma man de yoonu murit euh, du euh, xawma ci kenn sëñ Bassirou rek laa ci xam te ci dégg laa ko xam waaye mosuma koo gis ma ne ko lu tax mu ne man sama sëriñ maam Abdou Aziz si dafa am ku ñëwoon di ko laaj mel ne masala mu mu toog ba càgg ne ko ah mën naa la cee wax dara de waaye ki ma yaakaar na mën na la cee wax lu wóor mooy Cheikh Amadou Bachir doomi sëñ Tuubaa ji wax Cheikh Amadou Bachir boo ko seetee da nga xam dara xam nga loolu lu yéeme la ne ni tey jii ku ñàkk keñaan wax na ko ci borom xam bu mag kon kooku académie bii bu ñu toogee ba di ko teewe tey jii sant nañ ci yàlla di ñaan mu dem ba nekkub université ah comme waxtu wi jot na nag nan ko gàttal foofu ndax préparé wuñ wax ji waaye ñu ngi sant daal di encouragé sëñ Abo yàgg say morom yàlla na yàlla def tawfiq ak taysir ci barke Cheikh Amadou Bassir barke Cheikh Ramadan jërëjëf. alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit ji fi teew ak ñuy teewlu ci yeneen barab yu sori ñu ngi leen nuyu nuyu ba gën a sell te nuyoo boobu ñu koy jottalee nuyoo sunu kilifa Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moom lañuy liggéeyal fii te mu jaar ci Cheikh Mamadou Abdullah mi nga xam ne mooy suñu kilifa ci jumaa ji ñu leen nuyu nuyu ba gën a sell te di ko defee ci turu jaarale ko ci tur académie bi itam ñoom ñëpp ndax ku ci ne ci ñoom mënoon na koo def ku ñoom mënoon na koo def kon ñi ngi tàmbalee nuyoo bi ginnaaw bi nuyoo mbooloo mépp waaye ñu ngi koy tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoo ñu doon waxtaanal tey jii ah xaj na sant sa bopp moom dana jafe waaye ñu ngi sant sëriñ Abo bu baax a baax ndax conférence bi liñ ci doon yaakaar lépp gis nañ ci lu kaw lu ñu lu kawe njortu macha allah dañ koy ñaan rek yàlla yàggal ko ba li ba li mu yéene ji xam-xam mën koo jëfe liggéeyal ko ay ay ay waajuram ak i di sant sëriñ Muntaxa Sekk mi nga xam ne moom la jokkaloon sëriñ Moxtaar Sekk sëriñ mun Muntaxa Sekk sëriñ Moxtaar ñoom ñëpp di sant nañ ñëpp mbooleem ñi nga xam ne def nañ fi ginnaaw bi ay contribution yokk ci def ci ay taaliq yooyu yëpp di loo xam ne ay yokk rek la ay jàngale yu am solo kon nag ñu xam ne daal ah ñu itam euh, ci euh, académie ak mboolem membre yi moo xam lañu saqaafa bi la moo xam ñëpp la mboolem académie ñu xam ne suñ xol sedd na bu baax ci seen euh, taxawaay ci conférence yi waaye seen taxawaay yéen mbooloo mi nga xam ne waxtu wu nekk ngeen ñëw di ànd ak ñun jotaay yi du jóge fu sori ngeen xam ne yëg nañ ko te réer na ci ñun lool sëñ bi itam am na ci ak sant ak ngërëm lool ndax lii xam ngeen ne lu ko ñor la ndax li tax li koy feetle rek mën naa joxe ñaari firnde yi rek ndax ñaari gaayam yi di sëriñ euh, sëriñ Moustapha Dieng ak sëriñ Sey mi nga xam ne waxtu wu nekk dañuy dem jaaree mu leen liggéey lu foofu ci koor gi waaye ren daf leen wax ne bisu àjjuma yi moom na ngeen na ngeen di toog Touba di ma ko di ma di ma ko taxawul di bokk ñi koy taxawul kon loolu day tegtale maanaam yitteel gu mu ko yitteel ñi ngi sant mbooleem ñi ñi siiwul waaye nag ñi ngi sant presse euh, média bu baax a baax moo xam rajo yi la moo xam télévision yi la moo xam internet bi la ñu yittewoo gi ñu ko yittewoo di ko siiwal ndax li am njàngale rek la njàngaleem Serigne Touba mu ñuy siiwal di njàngaleem lislaam mu ñuy siiwal loolu rek la kon tam yéen ñi nga xam ne yéen a ko jot li boo fu waay maa nekk di ko siiwal ñu nekk Italie ñu nekk France ñu nekk Luxembourg ñu ne Canada am na ñu ne Canada ñu yoo xam dañu dañuy wax ne dañuy wax ne ñun lu baree bari ñu ngi koy jànge ci académie bi waxtaan ñu def ci académie bi kon lu rëy la lu am solo la kon daal ñu ngi leen di sant yéen ñëpp eh, di leen ñaanal yàlla nongul non boole ñu nongul liñ ciy sàkku ndax dañ ciy liggéeyal Serigne Touba rek di ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bachir di ci liggéeyal Serigne Touba ci liggéeyal yàlla suñu borom kon nag yàlla nañu yàlla tafeexal ñu am ci ñu daje cee ngërëmul suñu borom daje cee ngërëmul ngërëmul bi ah ñun ñun ñëpp ñu yàgg koo def euh, li fi nga xam ne fi lañ yéene ci tasaare xam-xam ak di soññi borom xam-xam yi ak gëstukat yi yàlla tawfeexal ñu ba liñ ci yéene lépp ñu man koo àggale kon nag bi mooy ñetteelu ajuma bi kon ñu ngi jëm ci ñeenteel bi ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp ñu ànd teewe ko ni ñu ko daan teewee euh, ci euh, waxtaane ñu waxtaan leer nañ ko léegi Cheikh Ahmadou Bachir sëñ Saliou Salaam di ko def di di di ko di def waxtaan wi ak eh, ak alaaj Hadj Ndiaye eh, docteur El eh, ñu di ci joxe ay neexal tam ñoo xam ne dañu leen ay ay ay jàmbaar yoo xam ne ñu gëstu ci diine di gëstu ci luy luy luy yokk liggéey Sëñ Tuubaa bi parce que moom tam am nañ yéene yi jox leen ci ay neexal kon ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen teewe si ko wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sant nañu leen ñëpp. ñu tàllal loxo yi sëriñ bi ñaan.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 yaa xayra dayfin ataa bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi laa silta dayfan kariman zaa'iran abadan mukarraman biqira taaati wassadadi muassaman inda rabbi laa sharika lahu wa inda ahli tuqa wal xilmi war rasadi laa sirta maa hiya aw saarin wa qaadiya aw taarin wa taarida axyaarin min alxaladi wa saafidan kulla saytaanin bima mahahu wa mudhifan li sawi lixsaani bisabadi ومصيبا كل أحسان نضيق بها في الدهر أفئدة يا مصيبا نكدي وصائدا كل عام ما نفوس به من جود مغن كريم نافع السيد يا سار رب كريم فيك جاد لنا بليلة القدر ذات الفضل والرخد يا شهر رب كريم فيك جاد لنا بليلة القدر ذات الفضل والرخد يا شهر رب كريم فيك جاد لنا بليلة القدر ذات الفضل والرخد